sunugal24.net l'information à sa juste valeur si si la sunugal24.net mbër ñu ñëwaat ci MMA bi ndax gis nañ ni nga compétiré macha allah nga nekkoon ni nga xamante ne yow yaa représenté woon Sénégal mais MMA bi yow après ba nga pare lan la def ci yow. waaw lu dul kontaan rek nit moom boo amee ndam. da ngay santaat yàlla sunu borom xam ne yàlla sunu borom moo la ko jagleel ki ma doon ki ma doon muy Sofiane bu gisu manuma ko yàlla sunu borom moo ma jàppale ba tey ji yàlla sunu borom may ñu ndam kon a baax di julli sonent ñu gis ñu gis ni sa compétition bi dem nañ ba Canal Plus dem ñu gis Reug Reug mu doon fierté si ñun ñëpp ñu la ciy félicité bu baax a baax télé boo xamante ni c'est partout dans le monde ñëpp di la seetaan ñuy wax un sénégalais boo xamante ni tey dem na benn loolu ba nga gisee sa bopp Canal Plus ak experts yi fa nekkoon lu def si yow waaw xanaa kontaan ndax euh, mooy li may wax rek si yeneen journaliste mooy leen làmb Afrique la yem waaw tey international la ñëpp a koy seetaan te tey jii man bi ma bi ma ba pare liñ am samay vie ñoom dañ ñoo owaat dañ ñoo owaat téléphone du ñuy remercier ndax lii neen mosuñu ko am seen bii yun am kon nga xam ne ñun ah, maanaam ay xale lañ rek dañoo nekk suñu liggéey ci ba te di ñaax tamit sama mbokki mbër yi bu ñu basé wu su benn sport nañ ñëw def ah, bu la sa bu la sa temps maye ñëwal nga ref sport bi ndax sport c'est le sport ñun li sport mooy suñu métier. kon bu ñu gis beneen sport boo xam ne tey jii dañ siy gagné monine gagné si tamit maanaam benn connaissance ah kon dañ siy duggu ndax man na maa ubbil ay porte yu porte yu bëri te loolu xam naa ko ubbil na ma porte yu rëy jaay. ñuy wax sa combat ak bombardier nga dégg bombardier ne pare na pour may la chance combat boobu fan nga ci tool te à part bombardier est-ce am na yeneen mbër yoo xamante ne tamit ñu lay contacter pour wax la. xam nga tey jii man mi Euh, mooy li ma wax kii nee naa ko sama combat feeg deux semaines incha allah dinañ si am lu leer man ak Bombardier incha allah ñu ngi si sori nañ si bu baax waaw sori nañ si bu baax a baax mais ñu ngi si daal ñu ngi si quoi. yàlla baax non quatre combats laa signé. waaw quatre combats laa si am. mais lan moo tax a dugg ci MMA bi. waaw don xale bëgg ko doon mu doon sport bu ma neex moo tax ma dugg si te euh, mooy li ma rek. Euh, boo opté pour doon euh, euh, maanaam champion doon champion di monde il faut nga ñëw ñamaat beneen sport boo xam ne tey yàlla suñu borom da lay gën a yàlla suñu borom da lay gën a dimbali yaa looloo tax ma dugg si Sunugal 24